alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala mawlana rasulillah sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi huda amma baad assaadatu almashaayix alfudala الأساتذة الأعزاء أيها الحفل الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إننا ليجدر بنا ونحن نتذكر مريد الشيخ الأحضار وخادمه الأرضاء الوالد الحنون مولانا الشيخ محمد المأمون رحمه الله ونتذكر معه نجده الأبر وشبيهه الأغر فقيد الملة والفيضة والوطن الشيخ محمد المنصور رحمه الله ولهذا قررت اللجنة المشرفة على تنظيم هذه المناسبة أن تخصني بشيء من وقت هذه المناسبة لأتناول فيه نبذة يسيرة من حياته المباركة تقديرا منه تقديرا منهم بأن ذلك سيكون في متناول يدي بحكم صلات القربى الوثيقة والصداقات الأخوية المتينة التي ربطت بيني وبينه رحمه الله ولا شك أنهم من ناحيتي غير مخطئين في تقديرهم هذا fa ana wa axi alxabib cheikh mohamadul mansour ka cheyin waxid fa irsuna waxid wa tarbiyatuna waxida chani fi dalika chana gayri min aglabi alxaadirin wa bima anna fi ljami man hum adra minni bima aqul فسأختصره في عجالة سريعة وأقول إن الشيخ محمد المنصور هو الابن الثالث من أبناء الشيخ Muhammadul Mamoun az-Zukur wa yakaadu yatawassatu iqdahum ولد رحمه الله في بيت الولي الكبير مريد الشيخ الصادق وحبيبه الوامق وصهره الموافق وخليفة الشيخ المعظم الشيخ محمد المنصور حيدرة في دولة مالي وتحديدا بإقليم سيغو عام 1977 wa sammaahu waaliduhu bi cheikh mansour hada tayammunan bihi fa kaana lahu min ismihi nasibun wa ayu nasib faqad kaana mansuran anna tawajjah mubarakan xaytuma xal وقد نشأ في حضن سمي المذكور نشأة طاهرة ودرس على يديه أبجديات العلوم والمعارف حتى أصبح متفوقا وأحاله سميه فيما بعد إلى ابنه البكر alaamatu sigu wa shaa'iruha alcheikh Mouhamad Alhashimi Haydara rahimahullah wa ala yadayhi darasa ma tabaqa lahu min muhimmat almatlub summa adina lahu cheikhuhu wa samiyuhu fi alawda ila alahl baada an axsana tarbiyatuhu wa saahama fi takwini alilmi walsuluki musaahamatan kabira kaana laha ma baadaha fi masirati alilmiya almubaraka wa xayaati xayaatihi aldaawiya annaajiha wa bima anna waalidahu kaana xarisan ala muwaasalatihi li taxsili alilmi wal istizaadati minhu falam yumhilhu fi listiraaxa tawilan bal sur'aana ma arsalahu ila al-azhar al-sharif ضمن بعثة كنت من بين أفرادها وأتذكر أن الشيخ محمد المأمون رحمه الله كان أقام لنا حفل توجيع بهي أمام دار الخليفة سيدي علي السيسي رضي الله عنه وقد حضر هذا الحفل البهيج جل كبراء الحضرة آنذاك وطلب الشيخ محمد المأمون من الإمام الشيخ حسن سيسي رحمه الله أن يقرأ على مسامع البعثة رسالة الشيخ التي كان أوصى بها بعثته إلى القاهرة وقت توجههم إلى الأزهر الشريف للدراسة وبعد انتهاء فضيلة الإمام من قراءة الرسالة تناول الشيخ محمد المأمون كلمة وأعلن أمام الجميع بأنه أجر لنا بيتا مجهزا بكل اللوازم حتى التكييف وصرح بأنه دفع مقدما مقدم إيجاره لسنتين فعلق فضيلة الإمام حسن رحمه الله على ما قال الشيخ المأمون قائلا بما أنكم ستكونون في هذا المستوى المعيشي الراقي إذا سأرافقكم لمواصلة الدراسة معكم وكان هذا سنة 1998 جزا الله عنا سلفنا الصالح خيرا ثم انطلقنا إلى الأزهر وأقمنا فيه ما شاء الله لنا أن نقيم ونهلنا من معينه الصافي ما كتب لنا أن ننهل من العلوم وبعد أن رجعنا منه لازم الشيخ محمد المنصور والده wa cheikhahu mawlana cheikh Mouhamadul Mamoun mulaazamatan udwiya wa saxibahu fi kulli nashaataatihi daawiya wa taxarukaatihi siyaasiya wal ijtimaaciya wastafaada min culuumihi naafica wa thaqaafatihi lwaasica wa xibraatihi alxasba wa tajaaribihi tawila kaman xarata fi silki tijaaniya والتربية على يديه إلى أن صار عارفا ذواقا وأذن له الوالد في كل أسانيده المتصلة بمولانا الشيخ إبراهيم رضي الله عنه fa asbaxa mazunan fi kulli ma yarwihi alcheikh maamun an alcheikh ibrahim walakin dalika lam yusni azmahu alqawi an muwasalati seyri walxidmati bal waasala alamala ila an waafi alcheikh mohamad almaamun al ajal alhamdulillah ala annahu lam yarxan an dunyaana xata saraxa lahu bi maxdarina bi annahu xaaza minhu atamma rida wa baada raxiili cheikh maamun chammara cheikh mansoura an saaidi ljaddi li iqtifaai xutaa waalidihi xadwa nnaali binnaal wa yufakiru daaiman fi kayfiyati muwaasalati amali alwaalid wa yatmaxu fi taxqiiqi mashaariihi tamuuxa wa qad taxamala hadihi almasuuliya alazima mubakkiran wa addaaha ala axsani wajhin bifadlillah wala baasa an nadkura baada injaazaatihi wa amaalihi الجانب الدعوي أولا قد كان الشيخ منصور رحمه الله مهموما بشؤون الأمة خاصة ما يخص من ذلك الحضرة الإبراهيمية وقد كان بشكل دائم يفكر في كل ما من شأنه أن يرفع راية الحضرة الإبراهيمية عالية خفاقة ويبذل نفسه ونفسه من أجل أن ترقى مدينة الشيخ إلى مصاف المدن الكبيرة في العالم سنويا كما احتلت مركز الصدارة والتقدم باطنيا وواصل جهوده جهود والده في المجال الدعوي والثقافي والتنموي والسياسي في شتى المستويات الدولية والمحلية فقد قام بتنظيم فعاليات كثيرة ومناسبات دينية عديدة في الإطار الوطني والإقليمي وكان يمثل الحضر تمثيلا مشرفا في كثير من الندوات والمؤتمرات الدولية والإقليمية التي كانت منظم في مختلف البلدان الإسلامية مثلا موريتانيا مالي نيجيريا مصر أبو ظبي السعودية أذربيجان فرنسا إيطاليا وغيرها من البلدان وكان عضوا مؤسسا للأمانة العامة للدور والهيئات الإفتاء في العالم الإسلامي بالقاهرة وعضوا في مجلس الحكماء المسلمين في الإمارات وفي الجانب الإعلامي مثلا كان مديرا لمجموعة السفكوم التي أسسها alwaalid rahimahullah wa waasalaha Cheikh Mansour allati kaanat tadumu kilan min idaat wa qanaat almadina allatayni zallata tabussu billuga almahalliya walarabia walfaransiya wa min acmaalihi fi tatwir almadina inshaa'ihi lijamciyati ahbaabi Cheikh fi muxaawalati taxriiki himami alshabaab alfayda wa dacwatihim ila alcamal waltatwir waltajdid الجانب السياسي كان رحمه الله عضوا فعالا في حزب والده إربي يعني حزب التجمع من أجل الشعب حيث عمل مع والده في تطوير هذا الحزب وكانت له مواقف شجاعة في كل مراحل التقدم التي مر بها وكان مسؤولا عن الشؤون الخارجية في الحزب الأمر الذي أهله لرئاسة رئاسة الحزب بعد غياب المؤسس وكان له حضور في المشهد السياسي في السنغال وتأثير انتخابي ملحوظ ولعل هذا ما جعل الرئيس السنغالي سيد ماكي سال يعينه سفيرا متجولا في مكتبه فسعى رحمه الله سعيا مشكورا في تعزيز العلاقات العربية الإفريقية ونجح في ذلك نجاحا كبيرا وهذا ما جعله حظيا عند الرئيس ماكي سال وغيره من كبار رؤساء الدول العربية والإفريقية ونخ ونختم هذه العجالة بذكر بعض خصاله الحميدة عرفت أخي منصور عن اتصال وثيق فعرفت فيه المسلم الصادق في إسلامه والمرود الصادق في انتمائه للشيخ والابن البار بوالديه والأخ المؤثر لإخوانه والزوجة الكريمة مع أهله والأب المشفق على أولاده والقريب الوصول لأرحامه والوطني الغيور على وطنه وعرفته شهما مقداما عاقلا رزينا سخيا معطاء سهلا هينا لينا متواضعا متسامحا جلدا صبورا وعما تبقى من خصال حميدة على الصمت أولى لي من أن أتكلم رحم الله أخي منصور وتقبله في العلماء العاملين والأغنياء المنفقين وأخلفه في أهله وذويه والحضرة innahu waliyu dalika wal qadiru alayhi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. gannaaw sant yàlla julli ci bi ñi tënk lii rek ndax lu bëri ci lakk olof bi ñu dégg mooy bañ sant yàlla julli ci bi nuyu kilifa yi fi teew ah, ñi ngi wax ne tey ñi ngi fàttaliku sëriñ bu xam ne ku am cër la ci waajuram muy Mawlana Cheikh Ibrahima Niass nekkoon bëkk néegam te nekkoon it baay joo xam ne ku am yërmande la ci njabootam yépp di fàttaliku it ki nga xam ne doomam la bu baax niru ko ci jëmmu ak ci jikko ki nga xam ne moom la àddina ñàkk fayda bi ñàkk ko réew mi ñàkk ko muy Cheikh Mouhamadul Mansour ci loolu ñi organiser ñoo ma tànn pour ma waxtaan tuuti ci jaar-jaaram ku ne xam na ne bu gàtt 44 waaye def na ci loo xam ne ni dund na téeméeri at te defoo ko ñi xam ko xam bu jege te li ko takk yépp du dara lu dul yàlla ak bokk te xam naa yi tànn biñ ma tànn juumuñ ndax liñ donn benn la ki ñu yar benn la te du dara lu dul xidmaat Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ak mbindéef yi moo tax danaa jéem a gàttal lii tënk ko ndax waxtu yu may wut firi lii yëpp ma ne mooy Cheikh Mansour mooy doomi ñetteel bu Serigne Mamoun Euh, moo nekk ci digg bi moog Seyda Aliyu mii nga xam ne ku ne xamoon na diggante ak moom euh, mu juddoo fële ca Mali ca kër yu wàll yu yàlla bu mag boobu taalibe bàyyi bu dëkk boobu. jóge Fuuta nga sori la lool. bokkoon kenn ci xulafaawu cheikh yi ca Mali mu Cheikh Mansour Haydara ci euh, Mali Ségou 1977. baayam tuddee ko Cheikh Mansour ngir. Euh, lu bari ndax ku ne xam ne Mansour jël na cër ci turam ndax fépp fu mu dem rek wala yëngatu bu mu doon yëngatu rek yàlla mi ngi ànd ak moom ak ndimbali yàlla mu sosu ci fu tey foofu noonu mu jàngal ko xam-xam yi ak téere yi ba mu nekk koo xam ne ràññee na xam na mu toxal ko ci doomam bu mag muy alaalaama ségu Cheikh Hachim Haydara yàlla na yàlla yokk leeram mu jàngal ko li des ci mutuun yi gannaaw bi mu jox ko digal mu ñib si Sénégal ba mu ñëwee nag sëñ bi mayu ko mu nokki dafa continuer di ko jàngal di yokk xam-xamam ba gannaaw bi la wax ne dañuy dem xaaxira ñu bokkoon ci ñun ñëpp man mi Seydi Aliyin Cheikh Tidiane Faye mi fi nekk Cheikh Tidiane dem ak ñu bëri keroog mu dajaleen ñu buntu kër xalifa bu màgg bi Seydi Aliou Cissé Cheikh Imam Hassan rahimahullah mu doon waxtaan ñi wax ñi fa wax ñu kawe ak fi jaar mooy ñi ko doon ustaz Abdou Bakhi doon waxee sànq al ba sëñ Maamun ne jëlal naa leen ay kër fay naa ko ñaari at ba néeg yi sax dafa am climatiseur imaam dafa jëlaat micro bi ne damay taaliq bu fekkee ne kër yi néeg yi dafa am climatiseur bu ñuy dem euh, duñ ma fi bàyyi danaa ànd ak ñoom pour continuer waat sama jàng loolu yëpp day wane coono bi ñu fa nekkee woon yëf yi yombutoon ñu toog fa ñoom di jàng dañuy doon encouragé moo tax yàlla ñu yàlla fayal suñu woy daway yu baax yi ñu nekk Azhar nag nekk fa di zaakara ndax dañoo ñëw fekk imtixaan xabul passé ñu ne fa ci kër gi di jàngalante moom Cheikh Mansour bu ñuy jàngal maa ngi ñëw séddaale ñi eh, bokk na ci li ñu jàngal naxwu jàngal ñi burdatul madih te amewuñ téere bi jàngal ma burda ba mokkal ma mokkal ko te amuma téere bi moom amul téere bi moo tax saa yu ñu dajewaan rek daf may fàttali loolu gannaaw bu mu dellu see fii nag mu topp euh, laazama bàyyi maanaam mosu koo mosu ta bu moom ci yëngatoom yépp ci politique ci social ci organiser mbiri diina waaye nag loolu jëriñ na ko lu bëri ndax amee na ci expérience euh, mu dina cee xamee lu bëri mu jox ko wér du tijaan mu nekk tijaan bu wér jox ko askar tarbiya xamal ko yàlla ba mu nekkoon ku xam yàlla ku xóotu sax ku kawe mu jox ko ndigal nag ci lépp loo xam ne ni jëlee na ko ci Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ci ay asaani gannaaw loolu nag mu jox ko lijaasa litlaa mu continuer rek waaye moom loolu doy ko mu continuer rek di dox di liggéey ba yàlla def li ko soob ci Cheikh Mamoun mu dem mu bàyyi ko fi masuliya bu rëy mu góorgóorlu ci nag ànd ak ay magam ak rakkam waaye mu nekkoon fi ku ràññeeku teg tànkam si kaw tànkam euh, mu ñeme woon masuuliya loolu enu ko dafa daf koo teel enu yàlla dimbale ko ci rafet na mun nañu tudd yenn liggéeyam li mu def parce que Cheikh Mansour ittey jullit ñi daf ko itteeloon lool waaye rawatina xadaratu Mawlana Cheikh Ibrahima bi ndax daf ci doon xalaat guddeeg bëccëg pour rek lu yëkkati pays bi lu ko développé ndax xam na ne moom Medina ci baatin amul lenn lu ko féete kaw te sëñ Mamour moo daan wax ne zahiri bàyyi amul benn waliyu wala ku ko xamul li ñuy itteel fi ne mooy baatin mooy mooy zahir si baatin bàyyi amul kenn ku ko werante waaye li ñuy itteel fi ne mooy zahir si dafa war a feeñ mu organiser ay ay conférence yu mag ak ay jotaay bi ci ràññeeku mooy hommage bi njëkk a defal sëñ Mamour ci dakaar mu taxaw ci taxawaay bu am solo gannaaw loolu daan na teew ci ay conférence ci àddina bi yëpp mu ne ni Mauritanie Mali Nigéria Misra Saoudia Azerbaïdjan France Italie nekkoon membre fondateur ci émana am ñi nga xam ne ñoo daan atte ci alamul islam yi ca xaahira ba pare mu nekkaat membre ci Euh, sages yi nga xam ne nii ñoo jiite jullit ñi ca émirats arabes ci wàllu communication dafa ñëw fekk sëriñ bi organiser benn groupe bu ñuy wax SAFCOM Mansour ñëw yokk ko indi ci xalaat al Madina télévision ak rajo bu Dakar ak Kaolack muy wax ci olof ak arabe ak français bokk na ci liggéey bi tamit créer jamiyatu ahbaabu cheikh pour yëkkati yitte euh, ndaw yi nga xam ne ni ñooy ndaw yu fayda bi ñu jëm ci liggéey ak jëm ci ndeesal ak bu baax lu aju ci politique nekkoon na membre ci parti bi waaye avant mu nekk membre ci parti bi fépp bépp parti bu sëriñ bi masoon a nekk rek moom suru bi ci wetam di ko dimbale di ci def ay action parti bi ba mu ñëwee mu taxaw ci taxawaay yu ràññeeku ba moo nekkoon chargé des affaires euh, extérieures bu parti bi looloo tax gannaaw bi sëriñ bi bàyyi ko parti bi ak njaboot bi gis ne kii moo ayoo ñu jox ko parti bi ñu jox ko mu taxaw ci taxaw bu rafet ci Sénégal euh, looloo tax ba yàlla defee mu ànd ak président Macky Sall mu gis taxawaayam ak ràññee ku tax président Macky Sall toujours day muy fàttaliku Mansour day wax ne 2012 euh, kilifa yu bëri yi ma àndaloon ak ni ma ci Mansour jàppalee ak ñi ma dimbali amul kenn koo xam ne ni taxaw na ko ci sama wet mu nekk ko am mu def ko ambassadeur itinéraire muy doxal ci biir réew mi ak ci bitim réew ak ci àddina bi yëpp ci foofu ci laay lancé appel wax président la ko nommé woon na Mansour pour mu nekk ambassadeur bu Sénégal teewal ko fële ca Égypte bëgg naa ene jooju mu mottali ko te ni ñu koy mottalikee mottali ko ko ci parti bi parce que dafay bàyyi parti bu ñuy wax rassemblement pour le peuple ay kilifa nekk fa ay cadre nekk fa ñoo xam ne waxuma la ambassadeur mais mën nañoo nekk sax président de la république donc loolu ñu koy ñaan mébét boobu mu mottali ko ci tënk daal ñu wax tuuti ci ay jikkoom ndax xam nañ ko ci lu jege xam nañ ne jullit la bu wér xam nañ ne taalibe bu aju ci bàyyi la ku bëgg bàyyi la waaye doom ju baax ci ay waajuram la mbokk mu baax ci ay mbokkam la jëkkër ju baax ci waa këram la waaye baay ju am yërmaane la ak cofeel ci ay doomam eh, ku bëgg jokk mbokk la ku fiiroon ci réewam la sëñ Mansour daal xam-xamoon nañ ko ku am maanaa ku am solo ku am xel ku dal ku tabe ku mën a joxe ku yomb ku am eh, tawaado ku mën a baale ku mën a muñ li ci des nag ci ay jikko li gën rek moom mooy ma noppi